araam nga ni inna laa laa yastahyi taxaw loolu kenn du ko def loolu mooy yàlla amul kenn booy jàng alxuraan da ngay xam fi ngay taxaw de waaye bu ne boo taxawee foofu rek wax nga musib yàlla amul kersa kenn du ko wax fokk da ngay jàng inna allaha la yastaxyi an yadriba masalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal la foofu benn signe ne ah kii de dagan naa taxaw moom waaye kay de boo fa taxaw woon da ngay bokkaale yàlla rusuta sadd masalan misaal ma ba'udatan lu tol ni yoo fama fawqaha wala lu ëpp yoo yahud yi dañoo ñëw ci yonent bi ne ko waaye sa yàlla ji alxuraan ji mu naan weñ waat jargoñ gaat picc maat xorondoom gaat waaye yow sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonent bi mun leen wax bu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax bu muy wax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax weñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yembit da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xam ne yoo la nja- yàlla njëkk tudd ci téere bii ci bàyyi ba yi tuddagul kenn xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee nanduus yoo kon yoo am na fayda namrus ni mu reere woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxor taxul dafa bëgg a indisposé daa bëgg gis régal su màttul nit du gis régal kon fokk mu màtt la boole si der ak deretam ndax bu ànd ak jëkkëram am doom allahu akbar waaw loolu kay loolu kéemaan yoo ba yoo duggee ca nopp ba namruus di def nii rek ba ba nopp ba di yuuxu muy def nii rek di sotti ndox ba miir mais sëñ na ko waaw teñ laa auteur mu ne ci naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow de jàpp naa la gars yi doon jàpp benn waay dagg boppam dakar defal kede def opération bi mu leen jiir seet seet seet seet na mu rus ni ah ñu ne ko mi ngi nii ndeket yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tànn yàlla def pour namrus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndéem si yàlla si ne toog gaa yi yuut paaka dagg baat bi jëlal kële dagg bi def bopp ci fekk moom salaamaaleykum ñëw loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusute sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na lefin ñi nga xam ne amunoo gëm nañ yàlla fa yaqulu fa yaalamuuna ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek ay dëgg min rabbihim seen borom it la jóge wa am na lefina kafaru ñu weddi fa yaquluuna ñoom dañuy laaj maasa araada allah lan la yàlla namu bi haada ci lii masalan da ciy sadd misaal ak li yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yu dillu bihi kasira da ciy sànk ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaalee rek nga dégg ñu ne ah ku mën di misaal boo misaalee gaa yi sànk waaw loolu la yàlla wax yu dillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa maa yudillu du sànkoo bi ci misaal nag illa alfasiqiina lu dul ñu génn topp ndax ñoom la ñuy bëgg a dégg ci misaal mooy tax ñuy sànk benn borom xam-xam bu baax borom misaal daal ne Kumba Gaaw la fekk journal bi daal koy génne muy fecc cëb sëriñ la mooy li ñu bëgg a dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndax ci imaam Maodo si la day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léegi léegi ñoom it doon na ngoo wax wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg mu ne seen jiw di misaal ne waa ji c'est un tijaan ah wala nga ne seen seen jiw tudd murid ne léegi c'est un vrai murid waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax gis bu la loola tee tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di di di tabax ba mu war faa jekk nga ko fi bëgg roof ngeen du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danañ fëllu du baax def fa rek luñ la wax moo xam def ci rek nag mu jeex pat kon yudli bii kasiran wa yaadi bii kasiran wa maa yudli bii ila alfasiqin sàccoor yi doomu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yan xuduuna dañuy firi ahdallahi kóllëre yàlla dañuy firi kóllëre yàlla min baadi misaaqihi ginnaaw buñ ko kóllërantee ba mu dëgër kóllëre gi nga am sa diggante ak sa borom nga firi ko wala kóllëre gi nga am sa diggante ak sa morom nga firi ko firi kóllëre baax kóllëre boo am sa diggante sa borom mooy yaa ngi woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot nekka kóllëre gi ngay séqal say morom nag mooy kóllëre sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ ah sàmmal kóllëre bi bul ko firi mukk ndax firi kóllëre bàkkaar la yonent bi alayhi salaatu salaam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe def ci bañ firi kóllëre xam ngeen fatax Makka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu naroon ñibbi waaw doo dugg Makka parce que dañuy signante ne doo fi dugg mu ne acca ñu signé Omar ne ko waayow ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekkul ci dëgg mu ne ah kay waaw pourquoi nag ñuy fii ñuy ñuy signante ak ñuy sax yonent bi ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële parce que Moussa waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonent bi bañ daa bañ a firi kóllëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonent bi yàgg fa lool mu door a ñëw ne ah yaa ngi fee mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kóllëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne bii kóllëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kóllëre koppati bii ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kóllëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu suwaa mu indi bu xonq tet ñooñu ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqataaw na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkaar bi gën a ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dog mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokk mbokk ma dow la moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seetaan ne la seetaan ne ne mbokk mi wax xanaa kii amul kër xanaa kii amul kër bu ko defee sa soxna di sa soxna di wu di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen def dina naan fi seytaan muy bëgg dugal mel ci yow ba bul ñëwut ci te defe nga ne waa ji comme dama seet du ma ko seet dag nga ku ne toog loolu la seetaane bëgg bu fi benn waaye ne nga yarhamuka laa seetaane ne dégg mu kat ne taalibeem la daf koo gëmb bu ne ci sóore mu ne ko yarhamuka laa pour su ëllëgee boo waxee ci sóor doo wax dara seetaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñu koy dagg ci bàkkaar lañ nekk wa yufsiduuna ñu yàq fil ardi ci suuf si ulaayika ñi dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci àlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla warti weddi yàlla su ko weddee nag léegi fokk ñu laaj waa yow yow lu la tax yedd yàlla mu ne ah mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a deewoon fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waaxu ni te fu ma gannaaw ga yumiitukum dana leen rayaat fu ma gannaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat fu ma gannaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom waaw ni ngeen koy weddee lu ngeen teg seen bët nan ngeen koy weddee waaw doomu aadama bi nekk góor ñi toog ci baab bi doomu aadama góor saa bu toogee rek lekk na dara na ko wóor ne doomam ci moom loola dana rees mu ne ci moom loolaa nga dee suñu añ yee ci kaw gi fi nekk nii ay doom nga ci ay nit ay nit yu bëri ndogu tey ay nit yu bëree nga ci moom la suñu abdi wax naan góor góor seen muy waxu ak karam la woon mbaam nawe mbaam ñam gi yal na ko yàlla yor suñu abdi waa la ko waxee mu ne góor waa joo seen muy waxu di tiitoo ak karam ba ma la woon mbaam nawe mbaam ñam gi mu ne kon tiitoo joru ko yal na ko yàlla yërëm kayfa takfuruna billah nu ngeen di wedde yàlla wa kuntum amwaatan te nekkoon ñu dee suma ginnaaw ga faayaakum mu dekkal leen suma ginnaaw ga yu miitukum ne leen rey ñu ñëpp xam nga fi ne ñu ngi gis gaa yi dem tey jii am na ko dem suba dina am ñu dem tey ci ngoon dina am ñu dem waaw bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek tey ñooñee dem suma ginnaaw ga yu yikum dina leen dekkal waaye ñun dañuy xaar bañ dem suma turjaoona ilayhi ñu delloo leen ci yàlla yàlla daal huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal maa fi l ardi li ci suuf jamian lépp li ci suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomu aadama li ci suuf lépp moo ko moom doomu aadama moom jant bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ngi ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yam na aadama xalaqtul asiyaa li ajlika lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له bul toroxlu li nga moom bàyyi si ki la moom mu tax bu doomu aadama daggee ab bant teg ko galan teg ko galan ci ndigg li yàlla jaaxle ne ko kii danga am moom ku moom fu ko moom ah danga am moom ku moom ku ko moom nga dem ba moom nga bëgg mu xeetli la huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp doomu aadama yee ko moom suma ginnaaw ga sawa mu yemoo ila samaai ca asamaan mu yemoo ca asamaan yemoo mooy toog mu toog ca asamaan waaw mu fa yàlla toogee loolu la kenn xamut loolu la kenn xamut te it maam Mali nee na laaj ko bidaa la mu ne toog daal ku ne xam na toog na yàlla toogee kenn xam ko laaj nag nu mu toogee mu ne bidaa la daan ne waaye ko doon laaj génni leen mu waaj jàkk ji loolu kenn du ko laaj dañuy gëm rek ne yàllaa ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la toogee ma tax benn waaye mas na ne yàllaa nga toog arab ni ma toogee sama séet waaw gars yi daal di koy sàkkal pexe suma stawaa ila samaa'i fa sawaahunna mu yemale leen ba ñu nekk sab'a samawaatin juróom-ñaari asamaan wa huwa yàlla nag bi kulli shay'in alim lépp la xam buy defee ne day nekk foofa rek li fii réer ko ba tax ku nekk bu ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mëkk cere tuuti jën di cere du naan damaa woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala wa bi kulli shay'in alim wa iz qaala rabbuka wa atlikul gis kero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom waxoon na lil malaayikati malaaka yëpp inni jaailun fi l ard damay def ci suuf si xalifatan ku fa ta ku ko taxawee xalifatan ku ko taxawee dama bëgg def suuf ku taxawee suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def histoire la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinne fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaram jinne yi mujj mel nii sénégalais lu ñu xewle rek dóor pooj ba yàlla jéppi leen ci fecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla na ko toogal fii yow ku baax nga daal di bindaat yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne yi jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek lu ñu xawee rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faagaagal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne eh ngand la ah yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax caro réunion bi li njëkk am problème jiir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqare te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaaka yëpp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax suñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga booy togg ceeb nawe ñi gën a ñàkk fayda nawe ñi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye tekku ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndab li moo ci mujj xaw ma ne seen bopp waaye teewul ku tënk tudd ko waaw ceeb bee ka neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax borom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana meñal jinni iblis jinne la suratu kafi xaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajalu fiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima di fa tuur deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fi am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ ci di waxtaan di fi tooñ malaaka yi ñaan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a falu déedéet malaaka la yaatuna allaha duñ opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñuy sàbbaal yàlla daa doyul ñu ne yàlla boo fi naree indi ko yàq tee ngaa bàyyi ñu yokk sàbbal yi rek ñu yokk sàbbal yi wa nahnu nusabbihu bihamdika ñu yokkal la sàbbal yi wa nuqaddisu laka ñu gën laa sellal xaala yàlla ne leen déedéet inni a'lamu ma la ta'lamun xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbal taxut waaw xeeb ay sàbbal taxut ndax man bu ñëpp lan lankoon dañ maa sàbbal du tee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposer Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha ma amarahum jaa tax ah mbir maam yàlla bind Adama war koo indi kaw suuf mor fee nekk war a sàmm suuf ba sàmm fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee reer ndékki nelaw pour moom am nga la paix islam nee na la paix day am juróom juróom su amul kenn amul jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal jii kenn du ko sàcc mbaa mu ko njuuj njaay sa diine jii kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der jii kenn du ko ŋa- ŋañ ŋañee juróom yi bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg saa xamaa ne taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am ci jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asmaa luwaaya kullaha luwaay yëpp luwaay yi tax a nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sangu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néeg ñeenti yi moom tam moom ngay assuré doo am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeenti yi ndax boo génnee génne diplôme mu métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk je pense que je crois que waaw léegi la tubaab bi jàngale waaye nooy def ba lekk moo tax su modernisé wutoon ni ñu doon dundee ci la suñ dund gi dàq bi mu ko modernisé ba mu ko modernisé gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ak ñoom seen yooyu puluux ci tóokóor bi su ngoon jotee nga ne ñoxeet sa pepp ma ne ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu nature bu sax xap nga am sa jàpp tubaab bi modernisé ko ku koy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu nag ñëpp mënuñu ko am moo tax dëkk dund gi naqari ñëpp bay àll ba ñëw ci kaw ñëw ci tax yi di bokk bokkloo fii tubaab bi ne da ngeen a bari il faut ngeen planifier fekk mataguñu téeméer waaw fii ak Thiès li fi nekk ci ay kër waaw ñu dugg fii di booxante néeg trente mille ak néeg quinze mille parce que loolu lañ tubaab bi moom moderniser suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gaa yi nag dañuy wax ne daf ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga dund dund bu neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay def ba am garab bi waaw su ma ginnaaw garab bi yàlla nappee aradahum ala al malaayika looye mu xamal ko malaaka yi eh malaaka bu ñaa mu ne ku xiif nooy def ba lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk ku mar nooy def ba naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafle nooy def ba solu malaaka ni moom man damay sol waaw ku takk soxna nooy def ba am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takk ay soxna moo tax ba mu ne leen fa qaala ma leen am bi uuni xamal leen ma bi asmaai haulaay ci loi yi in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a gérer suuf xaalu ñu ne ko subhanak sell ñeel na la laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu li nga ñu xamal ñun li ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war a wax ku mar wax alhamdulilah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sab jàngalekat lu mu xam loolu rek ngay xam waaw waru tayib soose dal na yàlla jàppale ko waaw waaje na ko tayib ndax xam nga xaanam lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko waaw kàlla yal na ko yàlla fay jox pat qaalu malaaka yi ne subhaanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alimu yoway aji xam ji ba xam lépp alxakim yow ak xereñ ba loo def du am njuumte malaaka yi daal d'accord xaala aadama xaala yàlla ne yaa aadam yee yow aadam aadam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen loi yi ku mar nooy def ba lekk ah nooy def ba naan aadama daal ne bu fekkee de am na da ngay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijji robinet bi mu xelli su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ko ubbiwul soo ko naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi may ndox malaaka ni allahu akbar kii moom xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def leen yéem loolu mooy si dégg allahu akbar kii moom xam-xam yàlla ne def na ku xiif na ngay ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daa di daa di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg a sàngu nooy def mu ne da ngay wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daa di sol oh malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëkk nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir murim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yomal xëyamati loo ko def rek duggal ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réew luñ gisaan nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réew gisaan nañ ko waaw waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon waaw ba yowm al xiyaamati wa allama adama al asmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey fi nekk nii am na indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko andil loo naan dañ la ko andil loo sol dañ la ko andil foo tëdd dañ la ko andil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alaaji Maalik ñoom suñu aadi toog jàpp seen jàmm waaw daawuñ ñëw fii sëñ Saliou kañ la gëj Dakar ñu toog rek jeex na boo xasee maîtrise ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow nga dem fenn man mi ko maîtrise bi gis ne maa ngi ni Dakar di wax ak yow falamma anba'ahum ba mu leen xamalee bi asmaa'ihim ca seen tur ya waaye tam ci anba'ahum mooy daf ko daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy naba ba mu ko firiñ fànce bi asmaa'ihim qaala yàlla ne mu ngo ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni alamu man rek maa xam xayba samawaati kum fak asamaan wal ardi ak kum kum fak suuf wa alamu te man rek maa xam maa tubduna la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca jaraay wax ne kii boo ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp laa xam ah bind nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu des nag lam santaane woon keroog mooy taasu bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi su jóota mu daal koy taxawal